at bu nekk effectivement euh, euh, dañuy organiser réunion pour xam ministre bi ci qui wala représenté moom moo koy présider et nous ñuy en tout cas réunion euh, bilan dañuy def un bilan par rapport ak li nous waxtaanoon daaw lan lañ def lan lañ deful bu fekkee effectivement defuñu lepp lan moy lan mo etc. etc., donc c'est un bilan donc c'est euh, un la deuxièmement aussi dañuy euh, présenter suñu programme pour xamné 2023 2023 lan la ñuy déjà ci bilan bi que 2022 vraiment dafa at intense la euh, vraiment de jot nañ def ay activités yu

Alors, en termes de taux de décaissement, dépassé les 40%. On a quand même observé et noté que, en termes de Madame Beyoum, surtout pluvial, vraiment, il y a une augmentation. Non seulement quantité, mais rendement a augmenté. Les légumes aussi c'est la même chose donc de façon globale madame am-am bénéficiaires yi dafa mais aussi euh, euh, xam nga yokk ko benn année baax mais amul trop solo loolu li am solo mooy nga yokk ko de façon durable et je pense que infrastructure yi yi ñu def ñooy permettre de façon durable at bu nekk ñuy gën a ñuy gën augmenter donc ses revenus.